nag man de wax ma kenn gisul dina am fan yoo xam ne dinaa ko tëbal di ma noppalu jéem a jàpp ci waaye waaye eh, waaye waaye kaay kaay kaay kaay kaay yow lii laa doon war xoolal li may def. boo doon war nag bii suma bos la di. sa bos la waaye yow tamit damaa xalaat de béykat yi lan moo ma manqué ci weeru koor bi nekk sa tala la xam nga ni lii waruma koo jëf. ma ne lu biig si guddi yaa ngi doon wax ne fa nga bëgg a jëndi. Eh, laay ko. Ah. gis nga kiwsel fañ indi lu ñoo wax ramadan promotion. waaw si biir weeri koor gii ñaari bés bu ay yu képp ku jënd na sim card di kiwsel ñu yor la benn satala nga jël benn kaat ñu jox la satala. kiw sel weli am sa si am sa satala kiw sel weli doo ma ko wax بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين حيث قال قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحن فرحنا اليوم الإسلام وفرحنا اليوم الإيمان غفر هنا اليوم الإحسان وأصلي وأسلم على مفتاح النبوة مغلاقها سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki جلدي yi gannaaw bu الله جلدي yàlla محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu موين جندي من ديف ñu ngi dalee suñ nuyu ci imam ratib imam masjid Jammeh Foundation fii ci bundu alhaaji Aboubacar Diassé imam ñu ngi laa nuyu di la tatagal di la wàcce ci sa wàccukaay di la wax ne yow ak sa naayib yeeg ñi nga bokk ak jumaa jeeg comité beeg alkaali beeg ñëpp ñu ngi leen a nuyoo nuyoo bi gën a sell muy nuyoo islaam xam ngeen ne suñ ñëw bi li ko waral mooy compagnie bi ñoo wax sel niñ ko baaxoo di def at bu jot te daaw ñu defoon ko ñu fekkee ko ren tey yàlla mayaat ñu fekkee ko kon loolu alhamdulilah sant yàlla la ba loolu moo tax imaam borom sewal di Mouhamed Dia moo ñu ebal ne nañ ñëw indil leen ndogu yii ndogu yii nga xam ne daf ko def ngir mbokkoo waaye daf ko def ngir yaakaar leen ci wàllum ñaan ngeen ñaanal compagnie boobu ñuy wax kiw sel ndax yàlla yokk seen doole yokk seen man-man yokk seen manoore ba nga xam ne liñ bëgg a jox ne réew mi ci ay network incha allahu yàlla dana leen ko defal ndaxte kat yàlla moom moo wax ne yéen ñëpp ngooy leen ci buumu yàlla gi te bu leen tàggale ko comme que loolu nag kiw Qcell def na ko ca dëgg-dëgg wont nañ koo wane war nañ koo leeral ci biir réew mi ñoom ñëpp ñu xam ko nit ki soo koo dimbalee da koo seet ci li gën a yomb nga defal ko ko su ngeen seetloo kiw sell seen tarif yi yomb na lool tarif la yoo xam ne soo ko jëlee ci wàllu international mën ngaa kool jël xaalis bu tuuti wax lu bëree bëri gannaaw loolu itam ci biir réew mi fii gis ngeen ko lépp loo xam ne nii ci wàllu weekend bi la def nañ ko lépp di firi kiw sell to kiw sell da koo kool ci weekend bi ba bor set doo du la du la yóbbee dara kon loolu yëpp wàllu ndimbal la di wane ne ki am ak ki ñàkk ñëpp ñoom la fi compagnie bi nekkal ndawi réew mi di doomi réew mi di Mouhamed Dia ah yónni ñu fii ne suñ ñëwee nañ la jotal imaam kàddu yi di leen wax ne kiw selang ci seen gannaaw ngeen ñaanal ko xam naa ne dañu leen di ñaanal kiw sel naam waaye ñu fàttali leen yàlla moo ne fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin fàttali ndaxte fàttali dina jëriñ mooy gëm ñi kon ñu leen a nuyu ñëpp kon imaam lii daal moom la ñu borom kër kiw sel yónneewoon Mouhamed ne suñ ñëwee nañ wax kàddu yi jotal la ko li leen wax na nag moom guddi ak bëccëg xelam mu ngi fii ci jàmme Foundation te di leen yaakaar ci seen ñaan yi ngeen xam ne incha allahu weer wii su ngeen ci ñaanee yàlla dina ko nangu ndaxte aji or yàlla du delloo ñaanam te wax dëgg yàlla yéen a ngi or yéen ñëpp kon am nañ yaakaar ne incha allah su ngeen ñu ñaanalee yàlla dina ko def loolu tax ñu indil leen ndogu yi indil leen satale yi nga xam ne pour jàppee loolu yëpp ngeen di fàttaliku compagnie bi waaye di vijana leo hii. Eh, eh, nakewa eyi eh, nadin nakeyo rekata windole eyo ngata asuwo kono fata mbawi bulo fare ndasalola ndalta ɗum ñim ɓe mum ndetade yagiɗen ndimbalala ani koy min jete ñim kumba ñim penda ñin teɗe ñin ɗo yinte fam sa inde ɗum eyi itteɗa sotono e mo nakata yo ñim ga sotoɗami cewu selde birin karo sun karo tilifolo ah. o kata til tan lu ah. ni ni si jim ka do sanje ah. isi diamu isi tasalo fana so je kawo sun karo tilifolo mhm. kata til tan lu ye sim garo sa ye da dara stan lu diam mhm. ye na mu de tasalo de tasalo je dama ay jim chali o dama e fara mo do fana kata itaria da ye <laughs> <laughs> na din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di tiitaroo da leen ndamoo da leen xamal ne itamit wax dëgg yàlla Qcell ah doomi réew mee ko moom ci li moo liggéey du génn biir réew mi waxtu wu nekk itamit yéen a ngi ko yombal lool dara jafewut ah toog lu mat bés wala guddi ba bët set ngay kool te doo ci fay dara yeneen bés ñëw doo ngay kool doo ci fay dara te network bi mën a àgg ba fu nekk ba bitim réew loolu kat sant yàlla la ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di wax ne ah, ala kulli xaal Jammeh Foundation moom itamit seen place la bugg ngeen ko waaye ñoom ñoo leen gën a buggati te itamit li ngeen di def loolu la diine bugg ki nga xam ne dafa or suba ba ngoon nga jox ko benn dogu ma rek wax dëgg yàlla kooku jox nga ko lépp yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne man aftara saa iman koo xam ne yaa dogal aji woor falahu ajruhu yow am nga yool bu xem ni bi nga xam ne moom la am yoon wala yanqusu fi ajrihi shay'an te tamit yool bi nga xam ne moom la doon am dara du ci wàññeeku te it lii ci jihaad la bokk ndax jël sa oto essence bi naka la seere nga jël sa xaalis jël say seta la jël say liggéeykat ñoom ñëpp ñu ñëw pour fekkee la si ñu lii ñu ngi wax ne loolu ñu kum doyu dara du la doy kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la fi nekk nag ñuy suñu natango ñoomin ñu ngi nii ak ki nga xam ne mooy mohamad jadde directeur bi nga xam ne moom moo amee lépp moom ñu ngi koy sant di ko ñaanal ndaw la te ndaw lu baax la ndaw lu xëy ne ñëpp jàmm la te itamin taxawaayam rafet na ñu ngi gërëm tayib ka tayib ka noonu na ma yow daal dëgg-dëgg jàmbaar nga ndax tey gis nañ taxawaay bi nga taxaw waaye ñoom ñoo gën a jàmbaar ñi nga xam wax dëgg yàlla fu leen oo oyu si fa te it bu ñëwee def ba ñëpp teg si seen i kon yéen waa Bundung yëpp ñu ngi leen di gërëm da leen wax jërë ngeen jëf lii yal na sax kiw sel yal na ko yàlla saxal kiw sel yal na ko yàlla dëgëral kiw sel yal yàlla yokk maqaamaam kiw sel ak staff ba fa nekk ñëpp yal nañ am promotion bu baax a baax te tamit doole ji ngeen am yaa ngi yal na ngeen am ju ko ëpp at mu ne rek yal na ngeen gën a jëm kanam te li ngeen man ren yal na ngeen man lu ko ëpp déwén ba ilaa yawmi diin ñu ngi leen di bégoo di de sawar ci seen mbir te di leen ñaanal ngeen jëm kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillah auju billahi mina sheytani rajim bismillahi rahmani rahim jomone saafu muytu ka jalum betate kone fof kana kala ko mbuɗon tour ko mi sinima e bileyo noon e suumoli sum fan fan kam ño suñcen ɗum ko ka jeew pour mangi sole wampo kam muno fo mi suŋe kono uli koɓuri ka duwowu waha te kam mbo jowu faculeyɗi minti kam mbiya haw boolu bu jeem fokke taku lambalamo minti kam wona wani giwonoor beeri cuisel minti kam mbiya mi tewuno o nde hoto matti sunkara ɗum kon kuelu e sumori sum fanfan kamuño sunkan mo kobo ka jeewu finkir jagen gilen gileñu kon yo kasa femit kama no waru sa femite no safu no salu ɗum kana kala komi tade buron tu musilma ka yalon be e mate woni kokore salu woni kokore safo emiti kawa hawlu bu jeen fokkile taku lambalamo wono woni goto mte kam mbiyamo tewni en o e barakabati ko wahlaka de horomade sunkara barakabati rasulu sallllahu alayhi wa sallam baraka barka welan wallayi أقول الجولة تأخذ وتأول بسم الله